seen patron tuddul le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale mbokk yi jëfati ci ànd bi ak euh, la chaîne YouTube bu Walfadjri euh, TV ni ñu koy defee tous les mardis bu waxtu wi jotee ñu ñëw di ànd ak yéen di waxtaanee Sénégal ak ay actualité am euh, tey nag euh, suñu waxtaan euh, yàlla dafa dogal ñu koy defee fu sori sori Sénégal ndax ñu ngi ci dëkk bu ñuy woowee Toulon nekk dans le sud de la France. fa la ñuy defee tey ji live bile ñu ciy profité di nuyu toute la communauté sénégalaise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bii di Toulon xam naa ne nuyoo moom dañ koy jël rek jël ko teg ko ci loxo suñu njaatige muy Ngayo Ngamb ak soxnaam Kiné ñoo teg joxal ñu ko toute la communauté sénégalaise di nuyu particulièrement suñu techniciens yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw euh, jàppale ñu ci euh, enregistrement wu live bi lee muy euh, sëñ Adama Gamb ak Baye Fall mbokk yi yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal fu ngeen mën a nekk ci biir àdduna ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu Dakar ak ci biir Sénégal mais ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu à travers le monde ñi nga xam ne ña nga fii ci France wala ñu nekk Italie Espagne Portugal Maroc États-Unis Canada Japon euh, Mali euh, un peu partout à travers le monde ku ci nekk rek comme ni ko ay si jaxate di waxee saa su ne ak heure ba nga nekk ñu ngi lay wax bonjour ou bonsoir di nuyu également suñu techniciens yi nga xam ne ñoom lañ daan àndal euh, talaata bu jot di def seen live bile ñoom Daoud Dieng Moustapha Niass ñoom Feuz Lastar ñoom Oumar mais également le grand baron ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp ñu ngi koy defee bés bu ne dinañ waxtaanee. actualité réewum Sénégal xam nga actualité Sénégal nag bu ñu ko waxee li ci ëpp mooy la liste définitive des candidats à la présidentielle de 2024 liste définitive boobu nag conseil constitutionnel joxe na ko ni ñu ko doon xaaree le 20 bile la seule surprise suñ ko mënee waxee noonu ci liste bi mooy kii di Karim Meïssa Wade di doomu Abdoulaye Wade moom du bokk ci élection yi ginnaaw bi nga xam ne conseil constitutionnel daf ko recalé li ko waral bokk na ci ñu ne dafa am euh, ñaari nationalité benn bu Sénégal ak benn bu France waaye tamit euh, dinañ waxtaane mbirum Bassirou Diomaye Faye ndaxte euh, Bassirou Diomaye Faye euh, dafay dugg moom ci taarixu Sénégal déjà candidat la jeune la Euh, candidat la boo xam ne jiitewul parti mais surtout surtout candidat la boo xam ne bi ñu koy tànn euh, pour mu nekk candidat à la présidentielle de 2024 moom Bassirou Diomaye Faye moom ne euh, ci kasa la ko fekk ndax dinañ ko bàyyi mu dem defi campagne électorale am déet dinañ ko waxtaane waxtaane également Ousmane Sonko mi nga xam ne après tout le choix ci ay loxoom lay nekk ndax ñu bari ñu ngi wax ne kan lay tànn pour mu war a nekk candidat ndax ba léegi waxagul même imaginer que ni le mieux placé pour porter le projet wala boog défendre les couleurs de Pastef wala de l'ex-Pastef ni ko ñeen di waxee c'est naturellement Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moom moo jiite woon moom moo jiite les cadres de ce de ce parti alors maa ngi wax sànq ne Sénégal euh, dugg nañ ci euh, taarix ndax candidat bu nekk euh, en prison gisoon nañ ko ci yeneen réew jaaxalul kenn mais ñu waxtaane d'abord mbirum Karim Meïssa Wade Karim Meïssa Wade nag xawma kan la bett ñu téye ko ci élection présidentielle bi ne du ci bokk mais xam naa ne du ñu bett ñun waa Walfadjri ñi nga xam ne ñoom habitude bi ñu déglu notamment suñu ay chroniqueurs Euh, parce que soo fàttalikoo ay jamono yu baree baree bari expliqué nañ que ni lii nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la tout candidat wala respecté pour bokk ay élection présidentielle li te man koo jàpp mooy Karim Meïssa Wade en tout bi nga xam ne euh, ci lay déposer sa candidature def sa déclaration euh, wax ne moom. il est exclusivement sénégalais muy la déclaration sur l'honneur bi nga xam ne chaque candidat daf koy def li ñu mënoon a jàpp mooy moment Karim Wade effectivement ñaari nationalité la amoon muy nationalité euh, bi nga xam ne li ñu war a fàttali moom mooy du ku ko wuti dañuy wax ne moom daf ko subir wala euh, fu mu juddoo moo ko may ndaxte yaayam française la moom muy papam di sénégalais euh, naturellement day am cette nationalité mais li waral coow li mooy Thierno Alassane Alassane Sall mi nga xam ne moom moo saisir euh, d'un recours le conseil constitutionnel man waxoon naa ne je comprends la démarche de Thierno Alassane Sall waxoon naa sax ne je salue la démarche de Thierno Alassane Sall li tax mooy dama jàpp ne le fait de dire que Karim Wade dafa am ñaari nationalité mënul nekk président wu Sénégal euh, ça n'a absolument rien à voir avec une question d'origine ou pas de Karim Wade Karim Wade sénégalais la ça ne se discute pas le débat ne se pas à ce niveau mais suñu bokkee ci élection présidentielle man mii njàmbur jàmbur tey juddoo Louga yaroo fa awma benn maamu français wala italien wala allemand wala japonais tey su ma ne woon damay nekk candidat à l'élection présidentielle su fekkee dañu teg loi bu wax ne képp koo xam ne danga am ñaari nationalité mënoo nekk candidat à l'élection présidentielle ba pare même loi boobu wax ne ñi nga xam ne ñoo mën a saisir d'un recours le Conseil constitutionnel pour dénoncer euh, cette euh, euh, candidature-là, c'est les seuls candidats des listes déjà publiées par le Conseil constitutionnel. Donc le fait que Thierno Alassane Sall def ko man je crois que c'est à tout son honneur et qu'on doit le ça parce que su def comme euh, vingt ou dix-neuf autres candidats yi nga xam ne dañoo toog croiser seeni bras koo ci wax ñu ne way xam nañ ne Karim euh, am na ñaar nationalité mais jaru ko na ñëpp bokk na ñëpp bokk c'est vrai ñëpp dañu war a bokk ci élection présidentielle mais en respectant li nga xam ne mooy les textes et règlements rawati nag la loi constitutionnelle du pays bi nga xam ne moom mu wax ne ku ci bëgg a nekk candidat il faut il faut nécessairement nga am nga nekk exclusivement de nationalité sénégalaise ça n'a absolument rien à voir avec l'origine ça n'a absolument rien à voir gis naa sax ñuy def ay amalgame naan wéy même suñu joueur équipe nationale yi ñu ci bari euh, ay binationaux lañ effectivement ñun ñii di wax ak yéen euh, ñu ci bari suñu ay mbokk ma am nañ nationalité sénégalaise am nationalité française mais du tey ñu nekk ay sénégalais di ko revendiquer mais ku ci dem ba war a jël responsabilité wu jiite réew mais c'est autre chose parce que mënoo nekk tey ji Karim Wade su fekkoon dañ ko bàyyi woon mu jàll ak sa double nationalité nekk président wu Sénégal dañuy jàpp ne il le président de set millions de sénégalais mais lui il a un président qui s'appelle Emmanuel Macron est-ce que xel nangu na président wu réew ne am beneen kilifa muy président bu beneen réew xel moo ko nangu boole ceeg àdduna bi toll foo xam ne euh, tout ce qui se passe entre les états man je comprends cette loi qui dit que ku bëgg a nekk président wu Sénégal tu dois être exclusivement de nationalité sénégalaise le problème ne se pose pas niveau beneen bi mooy damay dégg ñenn ñi ñu ne wëy Euh, bu bu euh, bu euh, conseil constitutionnel recalé Karim Wade simplement parce que dañu jàpp ne Karim Wade il a la double nationalité dañu war a reconnaître aussi ce conseil constitutionnel la Euh, loi bi nga xam ne moom la jaar respecté ko ba recalé ku mel ne euh, euh, Ousmane Sonko ma ne le problème ne se pose pas à ce niveau parce que su fekkoon ne Ousmane Sonko malgré nit ñi ko topp ñëpp malgré mbooloo mi ko topp yëpp ñu bari yaakaar ne c'est il était le mieux placé pour nekk président au Sénégal su fekkoon ne Ousmane Sonko boobule dañu ko téewoon parce que loi moom moo tere mu nekk candidat à la présidentielle le problème ne se serait jamais posé y aurait même pas débat mais li nga xam ne moo tax débat am ci mbiru Ousmane Sonko c'est que le conseil constitutionnel tey dafa poser un boo xam ne man gëm naa ne ci ay années yi ñu jëm dina indi Sénégal ay jafe jafe yu bëree bëri lu tax moo di ne tey un agent wala boog un fonctionnaire de l'État du Sénégal kenn dégg ko mu àtte tey mën na décider ne telle ou telle autre personne du nekk candidat et c'est ça la gravité de la de la chose bi nga xam ne mooy xew euh, ci suñu réew mii di Sénégal li tax ma wax ko mooy Ousmane Sonko li tax conseil constitutionnel jëlul euh, dossier de candidature am étudier ko dans le fond comme ni mu étudier les autres dossiers de candidature parce que simplement dañoo jàpp ne amul lu ñuy woowee quittance ñu ne quittance kan moo koy délivrer ñu ne la caisse de dépôt et de consignation caisse de dépôt et de consignation est-ce que Ousmane Sonko dem na fa jox leen 30 millions ñu ne effectivement le mandataire de Ousmane Sonko dem na fa jox leen 30 millions de francs CFA ñoom ñu bindal ko mën nañ ko tudd reçu mën nañ ko tudd neex peu importe mais en jox nañ ko kayit ne ko effectivement jox ko ñu 30 millions mu desoon donc une attestation qui prouve que effectivement le conseil constitutionnel a encaissé cet argent là et que de caution pour mën a pour mën a bokk à l'élection présidentielle sa la caisse de dépôt et de consignation soo laajtee kan moo ko jiite ñu ne la Cheikh Issa Sall moo ko jiite nga ne kuy Cheikh Issa Sall ñu ne la c'est un maire membre de l'Alliance pour la République muy parti bi président de la République jiite Cheikh Issa Sall moomu nekkoon xaritu Ousmane Sonko ba maître Abdoulaye Tall mi nga xam ne moom mooy porte-parole Pastef maître Abdoulaye Tall moomu lee euh, nekkoon ci kër Cheikh Issa Sall parce que bi mu jógee Mbour nekk étudiant wax na ne papa moo ko indi ci Cheikh Issa Sall dénk ko ko Issa Sall moom moo présenté maître Abdoulaye Tall Ousmane Sonko ne ko Abdoulaye Tall wax na ne jour boobu ci salle de lañ ko fekk mu ne ko kaay ma la fonctionnaire bi gën a jub ci Sénégal kooku mooy Ousmane Sonko ñu dem ba ci biir politique jaxase leen diggante Cheikh Issa Sall ak Ousmane Sonko ba ñu am ay jafe-jafe yu ñu fi amoon jàppante fi affaire audio yooyu les euh, yi fi yaaxam bay doon teg et tout ak euh, nu mu tudd ministre Mansour Faye loolu boole leen ba ñoom ñaar seqatuñu taal est-ce que xel mën naa nangu nit ku mel noonu bokk ci parti. kii nekkoon sa xarit ngeen jékki-jékki àndatu leen ndax da ngeen a jaxasoo ci wàllu politique yow ñu may la possibilité simplement parce que yow yaa jiite caisse de dépôt et de et consignation nga ne du nekk candidat parce que tu lui as refusé une attestation boo xam ne dafa bokk ci neuf pièces yi nga war a fournir au conseil constitutionnel ça pose un vrai problème cela veut simplement que ne tey su ëllëgatee je sais pas qui sera président après 2024 Mais soit le VT, d'ici 5 ans, 10 ans, ça va servir de jurisprudence d'ici 50 ans. Euh, je veux dire mën nga ñëw tey ñu ne ku bëgg nek candidat à une mairie, il faut nga am disons casier judiciaire wala nga am extrait de naissance boo xam ne amul 3 mois mais mën nga dem ci benn mairie fekk fa euh, sa adversaire euh, mu ne la non duma la duma la ko délivrer parce que nangam ak nangam di la dawloo comme di Cheikh Bara Ndiaye ba élection yi jot doo bokk donc loolu mooy li nga xam ne moom moo gênant euh, ci mbiru Ousmane Sonko parce que le fait de l'éliminer su fekkoon ne loi moo ko maye on aurait la même appréciation que bi ñu am ci wàllu mais malheureusement ce a vu la loi c'est le a cet acte là amu ci woon benn droit man wax naa ko waxati ko muy la direction générale des élections li mu def ne du jox Ousmane Sonko des fiches de parrainage il y a absolument rien qui le justifie li nga xam ne également euh, euh, la caisse de dépôt et de consignation def na ko il y a absolument rien qui le justifie beneen bi mooy le conseil constitutionnel quand il faut euh, qu'on lui reconnaisse une chose mooy poser na ay actes quelle que soit nag l'interprétation qu'on peut avoir de parce que le discours dominant bi nga xam ne moom nga doon dégg du côté du pouvoir ak même de certains <laughs> chroniqueurs de télévision euh, comme sama ay moroom ak ñeneen moo di ne wéy euh, waa euh, Pastef Ousmane Sonko xam nañ ne mënul dem seen plan B léegi mooy Bassirou Diomaye Faye et que plan B boobu baaxul boo leen laajee lu tax baaxul ñu ne wéy parce que Bassirou Diomaye Faye il est en prison il est poursuivi pour des faits graves au même titre que Ousmane ko le tee Ousmane Sonko du ko fa bàyyi tey jii le conseil constitutionnel leur a prouvé que ni ils avaient tous tort et nit lu ñu ko mën a accuser lu mu rëy rëy rëy tant wuñ ko ba condamné ko définitivement mënu ko xañ dara ci lu lu mu war a am effectivement c'est ce que le conseil constitutionnel a que ni en réalité <laughs> Bassirou Diomaye man ak ñi may seetaan ñooyam rek dafa nekk kaso parce que y a des dossiers qui le qui le mais jusqu'ici il a un casier judiciaire vierge kenn mënu ko topp ci dara dara dara te effectivement man jàpp naa ne le conseil constitutionnel amul woon beneen choix bu dul valider la candidature de Ousmane de euh, Bassirou Diomaye Faye et que d'ailleurs euh, foofu le pouvoir bu Macky Sall di juume lu bare bare te wax naa ko ne waxati ko ne leen su fekkee ne le pouvoir de Macky Sall dañuy continuer de le Pastef Euh, selon li nga xam ne moom la ñuy gis ci réseau sociaux yi mooy xale yi ñuy gis ñuy bind euh, di def seeni vidéo yenn saa yi sax ñu saaga ay nit affaire yooyu nga ne waa Pastef xale yi nangam ak nangam da ngay juum j'ai toujours dit que ni euh, l'élite de Pastef qui réfléchit avec Ousmane Sonko pour poser des stratégies n'a absolument rien à voir ak li nga xam ne moom la ñuy gis dans les réseaux sociaux et que man wax naa ko ci ay plateau yu bari je savais que ni effectivement Ousmane Sonko candidature am dina dem conseil constitutionnel je savais que Bassirou Diomaye Faye candidature dina dem conseil constitutionnel je savais que Habib Sy le Pastef dina def lu mu mën pour yóbbu ko conseil constitutionnel Cheikh Tidiane Dièye noonu et que même des autres qu'on a qu'on ne souvent et que un de nos confrères a appelé les candidats comme Déthié Fall ak peut-être Boubacar euh, Camara et Ousmane Sonko ci boppam euh, euh, confié na euh, kenn ci ay visiteurs am y a déjà quelques semaines ne ko man xam naa ne ils feront tout pour que duma bokk ci élection présidentielle mais dinaa leen tegal loo xam ne mu neex leen mu naqari leen y aura un candidat issu des rangs de Pastef ou bien en tout cas du camp de l'antisystème comme on dit à l'élection présidentielle et effectivement c'est ce qui s'est passé Ousmane Sonko n'est pas candidat parce que le pouvoir de Euh, xaru moo leen gën a lool bay Ousmane bokk élection présidentielle mais li leer mooy y'aura et il y a il de y'aura il un candidat de Pastef issu des rangs de Pastef qui plus koo xam ne moo nekk le patron des cadres de Pastef tey jii moom mooy défendre les couleurs de ce parti là à l'élection présidentielle de 2024 alors cette élection là nga xam ne vingt candidats ñoo ci bokk soo xoolee da nga naan vingt candidats bëri na de mais ci histoire du Sénégal je me dis peut-être peut-être j'ai pas j'ai pas trop vérifié vingt candidats bëri bu lu ko am ci élection présidentielle mais ce qui est sûr mooy vingt candidats c'est un chiffre raisonnable et li tax élection bi gën a yombati mooy on parle de vingt candidats mais ces vingt candidats la pratiquement mën nga leen a diffuser diviser en deux camps peut-être en trois camps maximum il y un camp boo xam ne man dama jàpp ne c'est du système ñoo mas a euh, euh, conduire le système depuis euh, Sénégal nekk indépendant ba léegi soit c'est des gens qui sont issus du parti socialiste wala de la famille de maître Abdoulaye Wade cette famille de maître Abdoulaye Wade là ñoom Macky Sall ñoom Idrissa Seck tout le groupe là ci lañ bokk kenn mënu ci mënu leen cee jël mënu leen cee jële moom la ñu jël boole ko ak la famille bi nga xam ne moom la fi Senghor bàyyi woon Abdou Diouf incarné ko. après cette famille là mën nga ci boole ñoom Khalifa Aba Khalifa Ababacar Sall ak yeneen candidats yoo xam ne ñu ngi ci liste 21 yi donc tout ce dañuy symboliser li ñu tuddee le le système. nga jël beneen camp muy ñi mën a tuddee peut-être les anti-systèmes ce camp là man dama naan euh, euh, dama ciy boole ku mel ne euh, Boubacar Camara parce que quand tu entends son discours di nga xam ne kii il veut un Sénégal. qui change complètement de paradigme mën nga cee boole ku mel ne Déthié Fall nga xam ne même s'il a été avec Idrissa Seck pendant sa carrière euh, ci pendant moment dans sa carrière politique li leer mooy Déthié Fall de 2000 ba 2024 au minimum vingt ans vingt ans d'opposition def na ko te amoon na possibilité fekki le régime de Macky Sall ak euh, Idrissa Seck quand Idrissa Seck a rallié le régime mais il a refusé de le faire et il porte un discours boo xam ne euh, loo ko manti waxal aussi da nga koy respecter pour sa rigueur da koy respecter pour son professionnel mais nga da koy respecter pour sa constance parce que depuis qu'il est avec Ousmane Sonko dans le Yewwi Askan Wi je crois que personne ne l'a vu trahir quelqu'un comme ça mën nga ko boole ci camp boobu camp boobu euh, forcément euh, Bassirou Diomaye Faye mooy ki nga xam ne moo koy symboliser le mieux actuellement parce que c'est le camp bi nga xam ne moom la le Pastef masa wax ne ñoom lañ bokk aujourd'hui kooku mooy euh, seen candidat moom euh, Bassirou Diomaye Faye donc le choix pour man pour les sénégalais euh, sera très simple mooy lan mooy y a des générations yoo xam ne ñoo incarné le Sénégal depuis 1960 peut-être même avant en tout cas bi Sénégal indépendant indépendant we ba léegi soo dindee la parenthèse euh, euh, du duo Senghor Mamadou ja bi nga xam ne dañu indépendant en décembre 62 mu tas ñu jugé Mamadou Dia tëj ko ci kaso bi et tout même système ñoo fi nekk di perpétuer wu jusqu'en 2024 ñooñu dama jàpp ne lu simple la pour régler le problème mooy est-ce que les Sénégalais dañuy préférer loolu Abdou Diouf doon wax le changement dans la continuité wala ñu préférer la continuité tout simplement des ak un président un système boo xam ne ñu bari ci Sénégal en tout cas les plus jeunes dañoo jàpp ne c'est un système qui les exploite depuis des années et des années ku ku ku bëgg dem ci ñooñu xam nga fa ngay voté ku bëgg nag ne Sénégal dafa war a jël beneen tournant c'est ça Sénégal dafa war a jël beneen beneen tournant jaar ci jaar ci beneen yoon. il faut nga changer forcément li nga xam ne moom mooy euh, sa euh, sa gis-gis ci wàllu politique. te foofu la mbirum Bassirou Diomaye Faye waxtaanee ko am solo lu tax mooy li ngay dégg ñu baree bari di ko wax dañ naan wéy euh, Bassirou Diomaye il est jeune je rappelle que quand j'ai lu hier nuit je pense. Euh, l'âge de Bassirou Diomaye Faye je crois j'ai vu 43 ans ans pour quelqu'un qui veut diriger son pays je pense je me dis quelque part que ni même waxuma jeune mais c'est l'âge idéal lan moo tax mais France gi nga xam ne moom mooy référence su Sénégal ci yu bare bari en tout cas suñu texte de loi yeeg yépp même li ñu taxawale suñu état ci France lañu ko jëlee mais France seen actuel président ñi ngi ko fal à l'âge de 39 ans Emmanuel Macron bi muy falu di nekk président France at yi Bassirou Diomaye fay am moom amagu ko woon pourquoi quelqu'un mën a am 39 ans de diriger un état aussi grand une des dix puissances mondiales comme la France ba pare ñu ne quelqu'un qui a 43 ans au Sénégal mënul war a diriger un état comme celui du Sénégal xel moo ko nangu plus récemment la France euh, Emmanuel Macron nommé na un premier ministre Attal bu la laajee la am dañ naan la 34 la 34 ans la am donc kooku minimum Diomaye Faye mag magane ko 9 ans pourquoi un homme de 34 ans mën a nekk premier ministre en France et que au Sénégal un homme de ans ñu ne way il est encore jeune beneen bi mooy même boo jëlul exemple France da ngay gis ne de plus en plus dans le monde à part peut-être les États-Unis euh, dans le combat entre Biden ak euh, euh Trump nga xam ne ñoom c'est des âges euh, presque 80 la ñuy am 79 jëm 80 peut-être même plus à part ça le monde a tendance maintenant a été dirigé par des jeunes parce que fi àdduna bi toll moo tax mais soo xoolee suñu réew bi nga xam ne ñun moom lañ bokk muy Sénégal mais Sénégal ñi nga xam ne moom ngay dégg très souvent ñu leen woowee mag ñi mag baat boobu dañ koy wax te xamuñu dëgg dëgg lu mu signifié souvent booy wax ci Serigne Touba wala Seydi Hadji Malick Sy wala ñooñu dañ naan la mag ñi ñin doon àndal ñoom ni leen di woowee mooy mag ñi doon ànd ak Serigne bi or boo fekkee la yow. ci es un jeune sénégalais ngay dégg ñu naan mag ñi mag ñi danga yaakaar na ñooñu lu ñu def seen àdduna ba tax fu ñu toll ñu leen di waxtaane ils fait peut-être bi ñu amee soixante dix ans soixante quinze ans or musul demee noonu Serigne Touba bi muy dem ci géej gi quarante ans quarante deux ans lay am quarante deux ans mille huit cent quatre vingt la dem ci géej gi à peu près la quarantaine la am moom Serigne Touba tout ce qu'il a fait il l'a fait pratiquement avant ses cinquante ans. ça veut dire quoi que ni suñ ko mënee waxee noonu je mets des bi muy def li muy def dëgg ba tax tey jii Sénégal boo wax Serigne Touba mu nekk fierté il avait à peu près il était à près de la génération de ñoom Diomaye Faye Ousmane ko Déthié Fall et cetera et cetera jëm 50 su fekkee ne yow dañ naan la moom Serigne Touba moom muy dem ci géej gi kan la tànnoon pour confier ko la communauté mouride nga xam te il a grandement participé à développer moom moo yar la ñu ne la maam Cheikh na Birahim Mbacké Mam Thierno Birahim Mbacké Serigne Touba lui a confié sa famille la communauté les Mourides dem géej dem ci géej gi boobu il avait 33 ans 33 ans nga <laughs> nga xam ne léegi nit ku am 33 ans au Sénégal sax on pense que si il est encore jeune mënul boobam dara alors or ñooñu li ñu def yëpp imagine Maam Cheikh Ibrahim dans un contexte aussi compliqué que bi ñuy yóbbu Serigne Touba ci géej gi il avait 30 33 ans Serigne Touba ses enfants moo leen yar moo leen jàngal moo yoroon toute la communauté mouride noonu lañ ko mën a waxee ci Seydi Hadji Malick noonu lañ ko mën a waxee ci ñeneen ñeneen ñeneen cela veut dire li mu bëgg a wax rek mooy il faut qu'on arrête dans ce pays de penser que nit il faut mu am cinquante jëm soixante ans pour mën a jiite Sénégal pour mën a jëriñ Sénégal et d'ailleurs Abdou Diouf bi nga xam ne nekk na président wu Sénégal mais Abdou Diouf ah les gens disent souvent que vingt cinq ans il de Kaolack bi muy nekk président wu Sénégal Abdou Diouf je je je oh, je vais mais bu amee 40 ans ca la yem am na ñu ne amuloo sax 40 ans. te il a conduit l'état du Sénégal dans dans un contexte extrêmement compliqué parce que bi ko Senghor di jox réew mi sa euh, réew mu réew mu ràbb lañ àll réew mu njàkk euh, euh, lañ lañ yoroon quoi. le politiques d'ajustement économique et tout Abdou Diouf moo ko conduire jusqu'en 2000 Abdoulaye Wade remplacé ko donc même Senghor bi muy jël Sénégal il a quitté le Sénégal à 74 ans. te Senghor jiite na Sénégal au moins pendant vingt ans ça veut dire quoi que yu nekk président wu Sénégal il était à peu près autour de la donc il faut ñu arrêter ce débat qui consiste à dire wéy ay xale lañu nangam ak nangam fii xale amul fii ku dem eh, eh, lu constitution Sénégal moo ne ku bëgg a nekk euh, président Sénégal il faut nga am minimum képp ku ko am dañ la war a considérer que ne nekkatoo xale donc ce débat là il faut l'évacuer beneen bi mooy woy dañ naan euh, problème bu profil parce que dégg naa ko bi ci guddi bi may xool euh, commentaire yi Sénégal et tout ma ne mais képp koo xam ne da ngay interroger wu ci le profil de Bassirou Diomaye Faye est-ce que il euh, le problème de lage je crois que c'est on en parle est-ce que il a profil pour être le président du Sénégal ma ne mais kuy poser wu question boobu rek pose la même question à propos de Amadou Ba parce que muy Amadou Ba muy Bassirou Diomaye Faye muy Mame Boye Diao ak peut-être ñeneen ils viennent de la exactement de la même famille ak Ousmane Sonko c'est la c'est famille c'est la famille des impôts et domaines donc li li ñuy man moom la ñuy man peut-être kii il ministre premier ministre et cetera et cetera mais peu importe en la, question du profil ça se règle facilement à ce niveau donc pour man y a pas y a pas débat en jarul jarul di sonn le problème de lage est réglé président wu Sénégal je crois que dafa jot sax nag ñu ñam un président qui comprend un peu le monde qui qui n'est pas dans dans et ce monde là ku déplacé wu un peu di nga xam ne euh, c'est pas un monde facile à maîtriser il faut être vraiment vraiment vraiment euh, comme on dit euh, au cœur de l'actualité mondiale comprendre les enjeux pour mën a xam dëgg-dëgg ne àdduna bi léegi li ci ëpp ay ndaw ñoo koy ñoo koy doxal les grandes entreprises du monde les les plus grandes réussites du monde ñi koy ñi koy def bañ koy def seeni 40 ans matul donc Sénégal problème boobu je crois que war nañ ko mën a euh, régler rapidement. léegi mu des est-ce que au sein de de de l'ex-Pastef ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal muy waa Lagos ak yooyu. est-ce que dinañ mën a tànn Bassirou Diomaye Faye ne mooy seen candidat est-ce que buñ ko tànnee ñoom ñëpp est-ce dinañ ci ànd gis naa un débat boo xam ne euh, les confrères ñu ngi commencé di ko installer un peu naan entre Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye ak euh, comment il s'appelle Bassirou Diomaye Faye kan lañ Ousmane Sonko di di tànn ce mooy si Habib Sy et candidat c'est parce que Ousmane Sonko la neex parce que Ousmane Sonko moo recevoir Habib Sy à la prison du Cap Manuel ba pare demander pour député de PASTEF nañ parrainé candidature Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye bu nekkee candidat Ousmane Sonko la neex pourquoi parce que Cheikh Sonko da ko recevoir à la prison du Cap Manuel ba mu fa génnee la ne waxtaan naa ak Ousmane Sonko li ñu tëgg suñu waxtaan ñun ñaar mooy naa dem man wuti parrainage naa dem wuti parrainage donc wuti parrainage yu Cheikh Tidiane ak ni mu def ba am parrainage loxo Ousmane Sonko génn ci Bassirou Diomaye Faye su nekkee candidat c'est parce que Ousmane Sonko la neex Ousmane Sonko moo demandé à son parti notamment ñoom euh, Birame Souleye ñoom Abass Fall ñoom El Malick Ndiaye ñoom Guy Marius Sagna nañu bàyyi ñoom ñëpp seeni candidature te Bassirou Diomaye Faye dem wuti euh, le parrainage citoyen loolu li ci Ousmane Sonko jublu lu yomb la mooy moom il est Si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, le débat ne se pose absolument pas. Il sera le seul candidat. Comme disait Abibsi, si les candidats, on se retire. Mais Ousmane Sonko avait prévu, et il le savait, contrairement à que ñu bari di wax, que ni le conseil constitutionnel en tout cas le pour le régime de Macky Sall pour bañ a wax le conseil constitutionnel dinañ def lu ñu man pour téye mais j'avais dit que ne li ma dégg te xam ko tuuti ci Ousmane Sonko ak ñi muy waxal. mooy pour moom il n'est pas question li daloon le PDS en 2019 dal leen dal ko moom en 2024 parce que li daloon PDS en 2019 moom moo koy topp ba 2024 2019 le PDS a dit Karim Wade mooy suñu candidat ñu ne leen wut leen plan B ñu ne amul plan B Karim Wade mooy suñu candidat te il sera candidat par par force fa ñu mujjee mooy Karim Wade nekkul candidat le PDS n'a pas eu de candidat le PDS était absent de la présidentielle de et loolu bokk na ci lu yombal Ablaye Wade faluwaat loolu moo leen topp ba 2024 les mêmes problèmes ñoo juraat euh, la même situation mooy Karim Wade du nekk candidat et j'espère que cette fois-ci le PDS ils ne vont pas croiser les bras ils vont se battre pour participer à ces élections-là donc Ousmane Sonko voulait éviter à tout prix que li daloon PDS dal le Pastef wala l'ex-Pastef su ngeen bëggee moo tax il a dit que ni si j'y vais pas Bassirou Diomaye Faye il va ba Bassirou Diomaye Faye parce que ak euh, réewum Sénégal moom lépp a possible malgré que ni amul benn condamnation buñ ko teg malgré que ni respecté na tous les critères pour être candidat ñu téye ko parce que euh, loolu moo taxoon ñoom Amadou Ba dem saisir le conseil constitutionnel buñ ko téye woon ñu ne ku mel ne Cheikh Tidiane Dièye dina fa des ku mel ne Habib Sy dina fa des et ñoom ñooñu peut-être dinañ mën a miser ci mën miser ci ñoom au cas où ñoom ñëpp ñu éliminer leen. y aurait forcément d'autres qui allaient passer et d'ailleurs le cas Habib Sy li nga xam ne moom la ci Ousmane Sonko ko woon dëgg dëgg dëgg te Habib si wax nañu ko ñun man ak Pierre-Edouard Faye on l'a reçu sur Walfadjri euh, dans le plateau du grand format il a dit moom ce qu'il mooy être le candidat de la transition parce que il a 72 ans je crois 72 ans s'il est élu en il ne peut pas être candidat à la présidentielle de Il, il, va, dépassé l'âge. Et je le vois mal nous convoquer un référendum pour changer loolu nga xam ne Macky Sall dafa wax ne dafa bokk ci li tuddee les clauses d'éternité maanaam loo xam ne kenn mënu ko changer ci constitution wu Sénégal ni mu tëddee. donc cette l'idée c'était d'avoir si Ousmane Sonko n'est pas candidat et que Diomaye demul et que peut-être même Cheikh Tidiane parce que moom aussi xam naa Ousmane Sonko il savait que ni waa Benno dinañ attaqué demul Habib Sy il pourrait passer mais à partir du moment où l'idée de cette transition là je crois à partir du moment où Bassirou Diomaye Faye tous les plans que Ousmane Sonko avait au cas où Bassirou Diomaye Faye ne serait pas mais plan yooyu pour man dafa war a dafa war a nërmeelu plus de raison de faire des calculs parce que si euh, le pasteur se met à fair des calculs naan wey euh, euh, Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye euh, Diomaye nangam ak nangam ça veut dire quoi que ni li ñuy wax ne Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko gëmuñu ko parce que su fekkee ne Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko si Diomaye et candidat un débat waratu fa am ça n'a plus de sens cela veut dire quoi ni si Sonko était candidat y aurait pas débat et puisque Diomaye mooy Sonko et que Diomaye mooy candidat bi il ne devrait il ne doit pas y de débat moo tax je me Sonko peut-être il est dans la stratégie il attend avant de donner euh, la consigne la plus claire possible mais je le vois mal franchement politique nag lu nekk am na ci lu nekk mën na la bett mais je le vois mal faire un autre choix que confirmer que ni le candidat qui va porter le projet de Pastef à la présidentielle de 2000 24, du 25 février, ce sera Bassirou Diomaye Faye. Je le vois mal faire autre chose. Et beneen bi mooy je crois que même les adversaires euh, du PASTEF loolu lañu nekk di jouer mooy comment faire pour jaxase leen diggante Habib Sy euh, Cheikh Tidiane ak euh, Bassirou Diomaye Faye ce débat là je crois que mooy débat bi nga xam ne moom la waa PASTEF war a éviter wala bokk nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko lu tax parce dama jàpp ne même. Euh, Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy ñu bañ a désister maanaam dem à l'élection présidentielle man jàpp naa ne lu mën a utile la pourquoi parce que le pouvoir de Macky Sall ku ko xam bu baax xam ne ils ne feront aucun cadeau à Bassirou Diomaye li nga xam ne d'ailleurs mooy yoon en démocratie te loolu l'élégance moo ko bëgg avant ñuy wax ci loi mooy Sénégal dañu wax ne buñ jëmee ci élection présidentielle candidats yépp ils doivent être traités sur un même pied wala sur un pied d'égalité loolu li mu tekki mooy candidats yépp ñoo war a am yam surtout surtout surtout temps d'antenne bi nga xam ne moom la ñuy am sur la RTS avant ñuy de la candidature de Bassirou Diomaye Faye Babacar Diagne miy jiite CNRA wax na ne temps d'antenne boobu ku dul doo ci wax il a dit léegi si Bassirou Diomaye Faye n'est pas parce que la loi moo wax ne nañu traité candidat de la même manière donc ces avocats am nañ droit demander ñu libeere ko le temps mu dem camp mu dem campagne mais ku xam pour pouvoir xam ne il ne fera aucun cadeau à Diomaye il faut prévoir le cas ñu bañ koo libérer pour le temps de la campagne si libéré wuñ ko pour le temps de la campagne temps d'antenne am par force dañ koo jox parce que loolu moom defe naa nag Sénégal euh, RTS du leen que un candidat am temps d'antenne mais temps d'antenne boobu bu ñu ko ko joxee te moom Bassirou mu nekk prison te prison kenn du fa dem di filmer kenn kenn du fa dem di enregistrer émission mënu fa direct mënu fa live comme ni ma koy defee nii quest qui va se passer mooy peut-être ils vont faire euh, euh, j'imagine euh, je sais pas comment est-ce que ils vont organiser ça mais je me quelque part ce qu'ils vont faire mooy peut su temps d'antenne Bassirou Diomaye Faye ñëwee. xëy na waa euh, comment il s'appelle la la le directoire de campagne de Bassirou Diomaye Faye mën nañu organiser seen meeting woo la RTS mën na ñëw filmer meeting yi jël mbooloo mi et di ko teg à télé mais discours ba nga xam ne moom la candidat bi war a def mais mënoo ko sant biram Souleye mu def ko à sa place mënoo ko sant euh, Guy Marius Sagna mu def ko à place parce que temps d'antenne bi Bassirou Diomaye moo ko moom moom moo ci war a wax donc tu auras peut-être cinq minutes ou quatre minutes je yoo xam ne campagne yu Bassirou ñoom ñoo ko moom mais ay images rek ngay gis boo boo deful ndànk parce que là peut-être que euh, ñu libéré ko xëy na mu dem campagne mais boo tax loolu moo nar léegi le fait que euh, euh, Habib Sy ak ku mel ne Cheikh Tidiane Dièye seen candidature pour man ban na utile ci campagne bi li tax mooy ñooñu së Cheikh Tidiane Dièye surtout ce dont je suis sûr c'est que pendant moment yi nga xam ne ñoom moom la ñuy wax ci campagne bi peut-être ils vont parler de leur programme et mais ils parleront surtout surtout de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye et pour man ça c'est très utile pendant les vingt et un jours de campagne mooy lan mooy lu Macky Sall masa bañ ne du masa am Sénégal mooy ñuy waxtaane Ousmane Sonko sur la RTS pendant ce temps-là au moins dinañ ko tudd dinañ ko waxtaane loolu moom c'est pour man c'est déjà un acquis beneen bi mooy nag y a les médias privés qui vont faire leur leur travail de couverture de la campagne je me dis même Bassirou Diomaye en prison ça doit être difficile pour lui de battre de battre campagne parce que li am sol ci élection yi ñu jëm mooy lii moo fi am gis naa benn waaye bind ci suba mu ne ñun mën nañoo wax moom waa Pastef la nee na ñu ne ñoom mën nañoo wax Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko mais de l'autre côté ñiy wooy waa boor bee ñoo wax Amadou mooy Macky Macky mooy Amadou ils ne ils ne le disent ne le peut-être aussi que Amadou Ba ne veut le bilan de Macky Sall mais bon euh, c'est mais li nga xam ne pour man <laughs> moo tax élection bi wala euh, campagne bi nar a pour waa pour le camp de pour ne pour le Pastef mooy lu simple la mooy ils vont pour Diomaye mais Ousmane loolu mooy la réalité les gens waxuma Pastef sax nag mooy les sénégal yi nga xam ne dañu jàppoon ne ñoom élection présidentielle ñëwee Ousmane Sonko la ñuy voté dañoo jàppoon ñoom ne à partir de deux mille vingt quatre Sénégal bu ko Ousmane Sonko yoree ci lay gën mais ñooñu dama ne amuñu équation amuñu question bu ñu posé wu. lu yomb la pour ñoom mooy Ousmane Sonko moo tànn Diomaye te comme ñoom ñoo wax ne parce que li ñuy wax. que ni mooy Sonko Sonko mooy Diomaye donc ñoom dañuy voté Diomaye parce que bulletin moo ne ci euh, fa ñuy voté mais Sonko la ñuy fal dégg naa ku mel ne euh, comment il s'appelle Birame Souleye Diop ko démb mais loolu mooy dëgg mooy lan moo di ne bu si si suñu voté euh, Bassirou Diomaye Faye gagné ñu ne mooy président wu Sénégal mais Bassirou Diomaye Faye buñ ko installé palais <laughs> acte yi muy njëkk a posé mooy Ousmane Sonko génn prison ba pare ñëw nekk au cœur de l'appareil d'État xaw ma nag ban fonction lañ ko fay jox mais tout cas il sera am na sax d'ailleurs lu ma dégg euh, benn journal bind ko ci suba mais dama jàpp ne wax dof moo ngi noonu mooy bu ñu falee Diomaye bu nekk prison euh, président assemblée nationale Amadou Mame Diop nee moom mooy nekk président. parce que comme Diomaye mi ngi prison <laughs> Sénégal man xaw ma li ñuy wax fan lañ koy jëlee quoi fii lañ taxawoon ne ku ñu dissoudre sa parti mënoo nekk euh, candidat tey ñu ne suñu falee jamaay amalu Mame Diop moom mooy nekk président Amadou Mame Diop bi nekk président yow boo falee président kay même bu nekkee bu nekkee prison na la leer ne la ñuy njëkk def mooy génne ko prison ba ñëw installé ko mu jiite réew après bu ñuy lijjanti affaire am ñu koy lijjanti mais loolu moom je crois que débat boobu c'est à éviter donc euh, pour jom voté Diomaye fal loolu euh, mooy li gën a yomb pour waa Pastef mais élection présidentielle la jëm te ñépp ñi nga xam ne ñoo ne biir Sénégal wala sax nga génn Sénégal euh, man dal na ma diggante samedi ba tey mardi boo jaaree fu mel ne Casablanca dajeek ay sénégalais. ñi jëm France ñi jëm Canada ñi jëm Maroc ñi jëm feneen ñi jëm Italie ñi jëm Espagne nga dox ci mbedd dëkk bi ma nekk di dajeeg ay sénégalais yu fi nekk en temps exactement le même discours que les sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoom ngay dajeel à Dakar mooy lan mooy pour ñoom réewum Sénégal il faut mu changer ay loxo le discours c'est le même les sénégalais. de de de Dakar en tout cas ñi ëpp ci Sénégal ci Dakar ak ñi ëpp ci les Sénégalais de la diaspora li ñu bëgg mooy Sénégal changer ay loxo mais Sénégal googu changer ay loxo dama jàpp ne musuñu koo gën a jege niñ ko jegee nii Sénégal def benn tour benn virage changer de paradigme man jàpp naa ne musuñu koo gën a jege niñ ko gën a nii. mooy lan mooy déjà dangay xool la liste des candidats nga gis ne am nga ci ay choix yoo xam ne ñii da lay leer ne euh, koo ci dénkoon Sénégal tey yàlla rek moo xam ce qu'il faut parce que nit nit la mën nga am yaakaar ne niñ doon yore Sénégal de 60 ans maintenant surtout dans relation relations avec des pays comme la France ñii seen yéene mooy changé ko maa ngi cité ku mel ne Déthié Fall maa ngi cité ku mel ne euh, Boubacar Camara maa ngi si ku mel ne Cheikh Diagne Dièye parce que leur discours boo ko déggee xam ne ñi li ñu gëm mooy Sénégal dafa war changer mais le le le bi nga xam ne moom loolu daf ko def projet Sénégal changé mu def ko projet nga xam ne foo dem man depuis hier je circule dans la ville de de Toulon ak sama mbokk yi ma fi nekkal mais daanaka sénégale boo nuyu boo xoolee loxo bi gis bracelet Pastef wala boo ne ko foo bokk mu yëkkati mu euh, euh, xëcc yére bi nga gis bracelet Pastef et ces sénégalais là ils la même motivation mooy nañu ko jaral ñu changer parce que neexul nga nekk ci réew juddoo fa màgge fa yaroo fekk fa sax ay bàyyi ñu juddoo fa màgge fa yaroo fa nekk ay baykat yow les conditions difficiles yi sax ay parents doon nekk ba faatu yow nga bëggee nekk ba faatu te mu leer la ne surtout ñuy tukki ñi ñu gis ñu defar seen réew ëpp ñu senegal richesse ëpp ñu leen ay ndaw ëpp ñu leen xam-xam man loolu moom a gën a metti ci senegal c'est-à-dire que réew a ngi nii moo xam ne liy développé réew ci àdduna bi yëpp am na ko suuf pour bay am nañ ko ndox pour bay am nañ ko li ñuy woowee ay ressources naturelles li ci senegal yor depuis quelques années muy feeñ ci réewam kenn xamul ni mu toll li gën a jafe ci réewu tubaab yi mooy ay ndaw maanaam des bras ay jeunes yoo xam ne 30 ans la ñuy am 40 ans li ci Sénégal yor du jeex ñu ne le dernier recensement d'ailleurs a prouvé que ni je ne sais pas 80 pour cent la ñu wax des des sénégalais amaguñu 35 ans wala bu ñu ko amee ca lañ mën a bay mën a liggéey liggéey boo bëgg Sénégal lànk na du dem mais ko waral Sénégal kenn kenn takku leen je veux dire kenn liggéeyu leen Sénégal amul loo xam yàlla tegu lu mu tegul ñeneen yàlla nattuwu leen ne da dee ci pauvreté. ça n'a pas la seule chose qui a manqué au Sénégal mooy li ñuy woowee un leadership c'est-à-dire que nit koo xam ne yàlla da koy may mu incarne loo xam ne su ne ñëw leen ñu ànd defi nàngam Sénégal yépp sawar ànd ak moom tey Sénégal gëm naa ne bu amoon bu amoon président boo xam ne su toogee nawet jub si mu ne xale yi jóg leen ñu dem ñun ñëpp ñu dem ci tool yi man bii di président dina ma jaral su ma ko mënul it chaque dimanche dinaa ñëw xool si leen li ma bëgg mooy ñu bay nangami ton ci gerte xale yi Sénégal yi ne ci mbedd yi di jaay ndaamaraas yor ñaari sirib yor ñaari carte élect euh, euh, carte orange xaw ma nuñ ko tuddee yor ñaari nangam ak ndànk nga xam ne booy circuit liberté six googu ñoo fa nekk dem bay am ci dara moo leen koy gënal mais da nga leen comprendre ñoom xale yooyu su fekkee ne dañoo gis seen ay baay seen ay maam ñuy bay ak ileer ak machine ak fas wala mbaam bu koy tiri ñoom ñu juddu. nekk ci loolu màggat ci mais wax dëgg yàlla duñ bëgg seeni doom ne ci dañuy préféré ñu tukki ñu mën a jàng jàng ñi ko mënul dem tukki ñi ko ñi mënta tukki dem Ndakaaru na ci tali bi di jaay ndamaraas ak yeneen yoo xam ne li muy yor di ko jaay yëpp soo ko calculer li mu bari bari matul mille francs mais ñooñu bu ñu amoon possibilité mën a mën a dellu di bay weer at mu ne wala boog weer wu ne ñu bay sur une année weer wu ne ñu am ci dara mais je crois que moo leen ko gënal foofu. te loolu suuf si am na fa suuf su nangu Sénégal ndox mi am na fa euh, euh, richesse bi am na fa lan moo manqué mooy njiit yi nga xam ne ñoom ñoo ko incarné mais njiit boo xam ne yéenewul ndaw réew lu dul Jakarta mais njiit boobu su nee ndaw yooyu kay leen ñu ànd dem bay ndaw yi duñ ko nangu parce que l'exemple lañ leen dul jox munoo ñëw ci réew mu mel ne France nga xam ne ci wàllu développement économique mën na raw Sénégal peut-être mille fois ñu ne la ñi ko jiite seen ay ministre ñemewu am koppar yi ministre sénégalais am xalaatuñ ko sax koppar yi ministre sénégalais am ministre France ñëwu koo am mais loolu xel moo ko nanguwul te loolu Sénégal dañu am occasion jeexal ko en 2024 te pour jeexal ko nag du question wu bokk Pastef ak bokk ci parti yooyu question wu mobilisation wu sénégalais yi la c'est aussi simple que ça amul secret parce que dégg naa plusieurs fois ñu koy wax te mat jàpp naa ne loolu dafa bokk ci liy décourager électeurs mooy lan mooy naan leen fichier bi baaxul Macky Sall du organiser élection ci fichier pour di ko ñàkk Macky Sall il fera tout pour son candidat jàll dëgg la dëgg la Macky Sall organiser wul organiser pour que. partem dem opposition non de la même manière en 2000 Abdou Diouf organisé wu pour que PS dem opposition de la même manière en 2012 Ablaye Wade organisé wu doon pour que moom mu daanu Macky Sall nekk président jàpp doomam dem kaso de yu def ci kaso bi mais lan moo mayoon en 2000 ak 2012 ay sénégal réussir déboulonner euh, un régime. ñu ne en 2024 non fichier bi nangam non non non élection moom régime bi ko pouvoir bi koy organiser li mu gën a bëgg mooy fexe ba décourager képp koo xam ne doo voter pour moom parce que ñi nar a voter pour le pouvoir muy taw muy naaj muy tàng muy sedd ñoom dinañ voter pour le pouvoir dina leen jox transport dina leen jox lu ñu añee da ngay gis sax Sénégal ngay gis ñuy voter heure añ jot nga gis ay booli ceeb dugg ci fi ñuy voté ñen ñoo ko fa indi mooy ñu ne ci pouvoir pour que ñi leen di voté ak seen i mandataire ak ñëpp mën naa ñoom dañ koy jaral quel que soit alpha ils vont voter pour le pouvoir léegi yow mi nga xam ne yaa bokk opposition lan moo la war su fekkee ne da wax ne da nga bëgg le régime change mooy wax naa ko waxati ko il faut que mu jaral sénégalais bu nekk ak foo mën ci nekk même si tu dois faire des kilomètres de route pour aller récupérer ta carte d'électeur nga récupérer ko téeku ndax fii ci Europe da ngay gis ay sénégalais yu naan la man fañ mu bind ma fa war a voter changé nañ ko je dois faire des centaines de kilomètres pour aller voter mais je vais le faire parce que jaral na ma yow nga dëkk Sénégal dëkk disons unité 16 ñu ne la école unité 19 ngay voter ji nga tàyyee la dem voter te yow ka nga xam ne mooy def ay kilomètres kilomètres ci Europe wala ci États-Unis wala feneen di dem di voter ji. moom mënoon na ne ak ku mënti nekk président Sénégal sama yoon newu ci parce que li may yàlla di terale bi ma koy terale fii ma ne xiifu mu maruma yow mi nga xam ne yow xëyoo góontoo defoo dara on te demande juste dimanche jour élection bu la neexee sax nga nelaw bu midi xam nga yeewu jóge unité 16 dem unité 19 voté wala nga jóge parcelle dem Grand Yoff voté wala nga jóge Pikine dem feneen voté nga ne noo jaraluma ko parce que nangam mais loolu boo ko ci lay changé réew loolu la ñuy wax la mobilisation des électeurs dama jàpp ne tey euh, les les euh, les parti d'opposition ont un rôle à pour mobiliser les électeurs mais électeurs yi seen bopp ñoom la war a jëlal ñu mobiliser wu ne lu mu metti metti même jour boobu bu fekkoon ne day taw on va aller exprimer notre vote et voter massivement parce que élection bu lañ kenn ku bañ ko saaj da ngay massivement si le vote est massif sàcc ko dina jafe lool wala boog ku ko sàcc da nga bëgg taal réew mais su fekkee ne ñeen dañoo toog seen kër ne jaru leen ko parce que dañ parce que loolu leen pouvoir bi di gëm lu en fait que ni bu ngeen da ngeen di sonn mais nangam ak nangam su nga nekkoon kon dañuy sonn mais du jëriñ dara damay toog sama kër du ma ko tey soo ko defee gars yi danañ la baj carte gi sa ginnaaw doo koy soo réussir mobilisation boobu ba pare dindi wala réussir leneen mooy li ñuy tuddee la sécurisation du sécurisation du vote te loolu c'est important lan mooy sécuriser la vote mooy processus électoral bu ñu ci nekkee da ngay jàpp ne ba ñu commencé bindu pour nekk électeur ba fa ñuy voté moment bu nekk dafa dañuy dafa jar ngay nga fay nekk su fekkee ne parti bu bëgg jël pouvoir nga da nga war a di surveiller le fichier électoral la nga xam ne moo indi coow lu bari ñu naan baax na baaxul fii la jaar fee la génn nga mën a surveiller ce la. mais soo paree ci loolu li gën a am solo jouru vote mooy nga fexe ba benn voix benn voix bu ñu exprimer en faveur de ton candidat nga fexe ba sa voix là cette voix là bu koy conté ñu compter ko pour sa candidat te loolu lan moo la koy may mooy li ñu tuddee sécurisation du vote mooy lan mooy am ay mandataires yu doy sëkk yoo xam ne d'abord les représentants dans les bureaux de vote loolu Je crois que les partis d'opposition ils vont s'organiser pour ça parce que j'imagine que tous les financements que le PASTEF di dajale à travers l'Europe les États-Unis même en Afrique même biir Sénégal loolu leen war a jariñ mooy am ay représentants yoo wuul dans chaque bureau de vote au Sénégal bu ci nekk am fa représentant boo wóolu boo xam ne kenn du ko ger du wax ne dama demoon sawi du wax ne dama demoon añi du wax ne dama demoon sama kër pour julli ñëwaat mais nekk ci bureau de vote ba dix huit heures bu ñu commencé compter yi mu nekk un deuxièmement am mandataire yoo xam ne dañuy wër les centres de vote di xool mobiliser say électeurs fexe ba koo xam ne da nga koo gis muy dox ci mbedd bi nga ne kii kër am na carte électeur nga sawarloo ko mu dem vote ji ñeneen ci centre yi ngay jour bu jour campagne kenn mënta campagne mais ngay wax ak ñoom parce que le pouvoir c'est ce qu'ils vont faire le droit kenn mënu ko bañal. te am nañ les moyens yu ko defee parce que ñoom ñoo yore euh, malheureusement ñoo yore euh, l' état les moyens de l' état moo vont l' yow mi nga xam ne yorewoo moyens de l' état les li nga yore kës ci ay moyens man pour man y en a euh, à la campagne c' est normal parce que campagne élection ak campagne mais le plus important mooy le jour du vote fexe ba ñëpp voté beneen bi mooy fexe également ba ñëpp ñi nga xam ne vote nañu seen vote boobu même bu dee benn voix la kañ ko yéenee. demal mu dem ci moom am ay zone yoo xam ne ñëpp xam nañ ne c'est des zones difficiles pour l'opposition mooy surtout le nord du pays muy Podor Matam et cetera yooyu y a des Sénégalais qui vivent dans ces zones là et qui veulent le changement ñooñu mais liggéey bu am solo moo fa am ba pare fexe nag ba des zones yi nga xam ne dañuy wax ne l' électorat sénégalais ñi ci zone yooyu lañ am lañ nekk en tout cas d' après l'ancien fichier je ne sais pas ba xam changé na léegi mooy l'axe Dakar Thiès Touba. parce que bu ñu ne laa Mbacké c' le deuxième c' est le premier département du Sénégal en termes de population mais loolu da nga ciy dégg ne Touba est la plus grande ville du Sénégal parce que ñëpp ñiy vote ñi ñiy wax ne ñooy voté euh, Mbacké c' est des gens Touba c'est c'est c'est électorat boobu non seulement da nga wéral mobiliser pour ñu dem vote ji mais fexe ba seen vote boobu nga sécuriser ko ba xewoon en 2017 bañ a xewati parce que 2017 le pouvoir de Macky Sall xamoon nañ ne PDS day gagné à Touba ñu ay soir ci bureau de vote yi gars yi xeex fa toj lu man lu mat bureau de vote ke wuñu yooyu c'est des choses yoo xam ne euh, l'opposition daf ci war a taxaw bu baax a baax a baax le jour du vote man dama gëm ne su fekkee ne les gens def nañ les combinaisons nécessaires maanaam ba a juum ci choix yi parce que fi mu nekk nii fii ak le 24 février boo juum ce sera soo waree tànn Moustapha Diop dem tànn Massamba wala nga tànn wala tànn Massamba dem tànn Moustapha problème lay am les choix d'abord et ensuite waxoon naa ko euh, ci benn keppaar gi à partir du le conseil constitutionnel joxe na la liste définitive des candidats mais di nga gis des coalitions ñu commencé di former tey ku mel ne Bougane Gueye par exemple il a dit ñëpp di ko dégg ci Walfadjri la ko waxee que ni moom ki muy àndal mooy candidat bi incarné l'antisystème ku mel noonu su fekkee ne yow da nga da nga ne man may l'antisystème et que dama bëgg a ànd ak moom dem kaña ji mais kooku doo xaar moom mu décider yow yaay dem seeti ko yaay dem jëli ko ku mel ne Aminata Touré depuis qu'elle a quitté régime de Macky Sall son discours est constant li muy wax dafa dafa leer deful ku mel noonu mais su fekkee ne yow da nga bëgg parce que élection dañ koy wax très souvent plus la du moins il faut ngay dolli ku mel ne Aminata Touré mais c'est non négligeable man dama jàpp ne ay Aminata Touré surtout Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañ leen recalé mais dañu am des rôles décisifs yu ñu war a jouer ci élection bi. man pour man kii candidat bi gën a intelligent sax boo def nag mooy candidat bi nga xam day convaincre ku mel ne Aminata Touré ba pare couvre sa campagne tey euh, soo xoolee ku mel ne ku mel ne par exemple le le le PASTEF ils ont la jeunesse ils ont euh, am na nit ñi am nañ également euh, euh, adhésion population yi mais tey su ñu amee l'expérience de quelqu'un comme Aminata Touré quelqu'un comme euh, Habib Sy mais c'est non négligeable pour une élection mi ngi noonu muy ay question yoo xam ne euh, d'ici semaine yi di ñëw ce dont je suis sûr près c'est que carte gi dina gën a surtout su fekkee ne Ousmane Sonko def na choix et man li ma gëm mooy le choix de Ousmane Sonko du ma ne par force nii lay demee mais dina ma jaaxal torop wala boog il sera incohérent su defee loolu wala Euh, dina ma jaaxal en tout cas mu def beneen choix bu dul joxe une consigne de vote en faveur de Bassirou Diomaye Faye et d'ailleurs d'ailleurs le seul risque pour le PASTEF tey mooy su ma dégloo les sénégalais de l'intérieur ak les quelques sénégalais de la diaspora yi nga xam ne ñoom laay dajeel bi ma génnee ba léegi mooy tey ñu bëggee Pastef reste ce euh, nekk ce bloc homogène la mu nekk depuis toujours mooy c'est de leur choisir un candidat comme Bassirou Diomaye Faye c'est le nga xam ne suñ ko tànnee tout le Pastef mais les autres soo koo ci tànn keneen tu prends le risque je ne sais pas ba xam s'ils vont mais tu prends le risque de voir des gens yoo xam dañ naan ah man d' accord ma ci loolu parce que bokkuñu nangam ak nangam mais Bassirou Diomaye ce qui est sûr à peu près mooy il va faire il va mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ naroon a waxtaanee tey ci seen live bi nga xam ne euh, on tenait à le parce que rendez-vous la bu ñu diggee ak yéen que ni chaque mardi dinañ ñëw ñu daje waxtaane actualité bu Sénégal tey ñu doon ñëw. pour commenter la décision wala boog la liste définitive des candidats yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel joxe. les seuls circuits yi ma ko waxee mooy Karim Wade bokk Ousmane Sonko est recalé mais le plus important je crois mooy les Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy voté le 24 ils auront les idées assez claires pour choisir parce que soo xoolee la liste des vingt candidats je dis très souvent le choix n'est pas compliqué ce sera entre trois personnes incha allah rabbi d'ici le 24 on aura l'occasion de faire d'autres lives prochain suñu yàlla mayee bakkan ak wér on le à Paris avant ñuy ñibbi si Sénégal continuer ci neen waxtaan pour préparer justement la présidentielle de du 25 février 2024 ñuy gërëm encore une fois tous les Sénégalais de de Toulon c'est des gens merveilleux yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk euh, gëm Sénégal bëgg ko li ñuy yàgg ci réew mi yëpp teewul seen xel yëpp Sénégal nekk di gërëm tous les Sénégalais qui nous ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fu ngeen mënti nekk ba talaata ak su neexee yàlla jërë ngeen jëf